fukkoon ak eh, benn weeru octobre atum 2023 mbokk yi safoo ànd ak programme yi Sunugal 24 bi simila ci xabaar yi la ca gën a fës eh, dañ koy doore ak direction de des élections bi nga xamante ne génne ab bataaxal ngir leeral lan moo tax eh, ba léegi mënuñ jox ki nga xamante ne moo di ayib dafa fiche de parrainage ñeneen daal dañu jàpp ne la nga xamante ne moo di état bi dafa jëloon ndogal dugal ab recours loolu daal la ñuy xaar mu yemb ñu doog koo jox li nga xamante ne moo di fiche de parrainage na nar a waxtaanee bokk na ci mbir moomu ba tey avocat yi ñoom nag nee nañu jël nañ ndogal euh, daal di attaqué ki nga xamante ne sax moo di direction générale parce que amuñu benn prérogative boo xamante war nañoo jox fiche bi nga ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ndax ba décision du juge ba daal di daano dañ ko waroon daal di appliqué définitivement ci meneen mi itam euh, la ñuy waxtaanee fële ca kër Momar Fa euh, kër Momar Sarr ñoo bu duggoon ci néeg bëgg sàcc ab liir waaye mbir ma mu jëwul ndax koo xam ne daal moo tëddoon ci ëtt ba moo sentir na ku nekk ca ba ca naka noonu itam la ñëw fekk leen mu bu mu daal di koy mu daal di yuuxu naka noonu la waykatu def ñaaw kii teef ya daal di daw yéenekaay bi de gaar Regard lañ koy daal di ndax keppee xibaar yi daal di buux bakk ba jip ñu faram fàccee xabaar yi direction générale des élections jël na ndogal ni ki nga xamante ne moo di euh, euh, Ousmane Sonko wala sax mandataire man ko jox li nga xamante ne moo di fiche de parrainage ndax nee nañ dégg nañ ay rumeur yu wax ne daal ñoom dañoo jalgati yoon ñoom nag indi nañ ay leeralal ci boobu la mbir ndax nee na la nga xamante ne moo di décision ba wala sax euh, mbirum nga xamante ne moo di mbirum fichier électoral bu Ousmane Sonko nee na mbir ma daal définitive agul naam sax juge ba jox na di joxe na li nga xamante moo di ab verdict waaye dañuy xaar la nga xamante ne euh, moo di état ba ndax dañoo jàppoon ne a dugal ab recours loolu ko defee bépp décision boo xam ne sax daal ki nga xam ne moo di Ayib Daffé donc daanaka démb ma nekkoon ñaareelu jour ba nga xamante ne demoon na fële ci direction générale des élections ngir daal di jël la nga xamante ne moo di fiche de parrainage waaye ba léegi mënu coo jot moom nag mi nga xamante moo di mandataire Ousmane Sonko nekk itam député ca pencum ndaw réew ma nee na mbir moomu sax duñu ko nangu benn yoon te sax dañuy salfaañi àq ak yelleefu Ousmane Sonko ndax démb ba mu demee jotuta sax dugg benn commissaire ku ñu naan commissaire Sarr moo ne ko mënoo dugg te amul benn motif bu valable boo xamante ne euh, jox nañu ko te nee na sax démb am na ay mandataires yu bëri yoo xam ne fekk nañ ko fa daal ñu bàyyi ko euh, ñu bàyyi leen ñu dugg ba noppi jox leen ay fiches waaye moom ba léegi mënul euh, mbir moom mu mënut a antu ca mbir moom la ñuy desandi ba tey avocat yi lawel Ousmane Sonko ñoom itam daal dinañu yëkkati ay kàddu teg ko ci ki nga xamante ne moo di direct direction générale des ñaan daal wala ñuy sàkku sax lay wax ci ki nga xamante ne euh, moo di Thiendella Fall mu daal di jox nga xam ne euh, moo di mandataire Ousmane Sonko ay euh, li nga xam ne moo di fiche de parrainage ca nu mu gën a gaawee ñoom sax dañu daal di sukkandiku ci article bi nga xamante ne moo di article 47 ndax gannaaw décision ba nga xamante ne juge bi joxe woon na ko ci saa si tembe sax la ñi nga xamante ne ñoo di waa DGE daal di woon jël ndogal delloo ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko ci fichier électoral yi waaye nag ñoom ne nañ mbir moomu duñu ko bàyyi benn yoon lépp lépp loo xamante ne yoon may leneen ko dañ koy daal di def mbir mu doy waar moo xew fa nga xamante ne moo di ci Kajoor nekk ca euh, Ziguinchor benn waaye buy turoo ci turo M Baldé la ñu jiñ ne dafa daal di sàkku ñetti jarbaatam kenn ki góor lañ ca des ay jigéen lañ moom daal bam bu leen daan sàkku daf leen di menacer li nga day leen def li nga xamante euh, moo di menace ba a ko góor la ak koo xamante ne moo bett waa ji ci ci douche ba muy def naka su dul noonu ak nga xamante ne moo di xale ba naka noonu itam famille ba dañ koo bëggoon a nës nësal waaye kenn ci ay tàntaay xale yi moo daal di woo police naka noonu itam moom mi nga xam ne sax moo doon def loolu mujjee nañ ko teg loxo lañ dañ koy jàpp lañ ko toppee bokk na ci li nga xamante ne moo di acte de contre nature ak pédophilie bu ñu sukkandikoo ci libération bi nga xamante ne euh, moo joxe euh, bile xibaar euh, ñu wax ci leneen mbir mu doy waar moo xew fële nga xamante ne moo di kër Momar Sarr ñetti waaye la ñu bett ñuy ñuy bëgg a sàcc benn liir boo xamante ne ñaari weer rek la am ak lu tegal kenn daanaka guddi la sax te kenn nekkutoon ca kër ga mu am koo xam ne daal ma nga woon ca ëtt ba di féexlu naka noonu itam nee na dafa dégg wala sax dafa xelmati ne am na kuy dugg naka noonu la daal di jubali directement directement ci néeg ba fekk ay ñett xale goo yoo xamante ne dañoo bëggoon a jël liir bi nam yuuxoo sax loolu moo tiital ñi nga xamante ne ñoo doon def ñaawteef boobu ci la ñu daal di daw bu ñu sukkandikoo ci libération bi nga xamante ne euh, moo joxe bile xibaar ñoom nag daal dinañuy daal dinañ leen di teg loxo ñoom ñetti ñëpp aljuma bi nga xamante ne euh, la démb sax ci aljuma ci Euh, ñu wax ci li nga xamante ne moo di euh, mbiru Ousmane Sonko ginnaaw ba ko juge bi jëlee ndogal ni daf koy delloo ca liste électorale ndaxte nañ ko ca génnee jaadawul yoon nga xamante ne moo di Alioune moom ci mbir ma di njiital Afrikajom Center moom daal nee na jamono ji euh, dafa jàpp ne fi nga xamante ne moo di réew bu Sénégal ak ak yellef dañ koy daal di salfaañe moom sax dafa dem sax ba ni ki nga xamante ne moo di Thiendella Fall dañ ko war a daal di limogé parce que la nga xamante ne lay def teguwul ci benn yoon yoon moom sax ci fa nga xamante ne moo di Sud Quotidien la ko daal di xamle moom mi nga xam ne sax moo di Alioune Tine yéen kaay bi di Le Regard lañ koy daal di ndax képpee mi nga xamante ne dafa xëy fësal ci ñaataalam bu njëkk comme ni mu koy defee saa su ne ki nga xam ne sax moo di direction générale des élections nee na daal indi na ay leeral comme ni leen ko waxee léegi ci boppu xibaar yi bu ngeen demee ci page cinq bu yéen bi di Le Regard mën ngeen ko fa fekk ki xam ne itam moo di Amadou Ba nekk premier ministre nekk itam candidat Benno Bokk Yaakaar moom moom jamono ci mu mel ni ma nga def ab tournée ma nga foofu sax ci Saint-Louis di wax baax baax yi nga xamante ne la njiitu réew Macky Sall def naka noonu itam ci page 4 bu yéenekaay bi di Le Regard mën nga cee fekk ñi nga xamante ne ñoo di président commission ba euh, jamono ci lii la leen indiloon ca xabaar di jaajëfal bu baax doo waa bi nga xamante ne moo nekkoon ci xarale gi dig dajal leen di incha allah ci ngeen jëf